ñëwoon fii ci kër ba alaaj Iban Ndiéguène dem Canaba dem Tivaouane dem Louga dem Ndar euh, dem Touba te ñu fas dem euh, Mbour dem sokon dem jamal euh, dem Kaolack dina am troisième phase ñu fas yéene dajal réew mi yëpp dajal réew mi yëpp mooy fësal wan nen ni l'islam bi benn la muy cadre boo xam ni maanaam mboole seen kuréel yu ci bëri ci wàllu l'islam ñu ngi ci biir waaye tarixa yëpp ngi ci biir muy liggéey bu am solo ñu ko ci ñaanal yàlla yàlla defal ko ci tawfiix ñu dalal leen fii ci Thiès tey euh, jamaatu Ibaadu Rahmaan dalal leen ñu ñu dalal leen waa Thiénaba dalal leen mu mel ni euh, euh, région de Thiès moo leen dalal ñu fas yéene nag ànd ak ñoom gunge leen. ñu ngi ci ñaareelu phase bi nga xamante ni moom lañu mooy tournée bi nga xamante ni mën mel nañ ko ngir mën a dem waxtaan ak kilifa yi kilifa diine yi nga xamante ni ñoo ŋànk tarixa yi fii ci senegal ngir wax leen suñu taxawaay ci wàllu defaraat diggante yi. Euh, ci contrat bi nga xamante ni moom la sénégalais yi euh, ànd di liggéeyal diine di liggéeyal société bi di liggéeyal euh, koom-koom bi ñu ne Sénégal toll na ci jamono joo xamante ni njiitu réew mi woote waat na waxtaanaat ngir mën a tëggaat lii nga xam ne mooy suñu cëslaay mooy taxawaayu. nitu diine yi waaye taxawaayu nitu société yi taxawaayu nitu économie taxawaayu nitu politique yi ñu ne ñun en tant que këru diine war nañoo mën a xool lan moo ci suñu wàll ñu def ay proposition jëmale ko ci euh, mu jóge ci këru diine yi d'abord waaye ñu jëmale ko ci yi nga xamante ne ñoom ñooy ngàkk dialogue bi ndax dialogue bi du dialogue président de la république kese dialogue sénégalais yëpp la wa tabarakallah euh, loolu mooy tey suñu taxawaay ci contexte boobu la ñu jëm waxtaan ak kilifa diine yi ci question yi nga xam ay question essentielle la ci réew mi mu jëm ci wàllu njàngale mi ndax gis nañu problème yi am ci daara yi ni mu amee ay jafe-jafe euh, système éducatif yi nga xamante ni dafa dafa xar ñaar bii jëm ci wàllu euh, njàngaleen tubaab bii jëm ci wàllu njàngaleen arab ak euh, alquran ñu ne jaadu na ñu xoolaat yan anam la ñu war a taxawee ngir mën a xool naka la ñuy mën a boolee ñaari système éducatif yooyu waaye it am na yeneen jafe-jafe ci wàllu euh, yi nga xamante ni mi ngi ci système éducatif bi te muy cëslaay réew mi te nekku ci muy njàngale yu mag yi nga xamante ni moom la ñu mel ni maam borom Touba ñu mel ni Seydi Hadj Malick wala Seydi Abdoulaye Niass wala Baye Niass wala mbooleemi kilifa diine yi ci Sénégal am nañu ay njàngale yu am solo yoo xamante ni ci wàllu jàmmoo ci wàllu tolérance ci wàllu euh, boole xol yi ñu ñu yéegaani ay référence te am ay référence ci réew mi ñu ne loolu euh, taxawaay la boo xamante ne cadre war na xool naka lañ koy mën a doxale ba am na ay jéego yu ci dox ñun ci wàllu euh, euh, élaborer benn manuel boo xamante ni dañoo boole mbooleem njàngat yooyu pour mën koo dugal ci système éducatif problème mu daara gis nañ ko gis nañu jafe-jafe ci am daara yi dañ leen nasaxal amuñu ay moyens yoo xamante ni mën nañu fexe ba demande sociale bi Sénégalais yi am ci wàllu daara ñu xool naka la ko état bi mën a organiser ba mën ko jël en charge ngir problème ñi ngi ci am ci wàllu euh, jafe-jafe ci koom euh, jafe-jafe ci programme jafe-jafe ci euh, taxawaay ñu mën koo faagaagal. donc loolu mooy taxawaayu tey cadre bi donc loolu mooy tey suñu ci ci point yi nga xamante ay point essentiel la yoo xam moom la bëgg nañu dem waxtaan ci ak kilifa diine yi.